mu mel ni soo doon tënk ji dafa mel na jumla laa ilaha illa allah rasulullah alayhi salatu wassalam xasida rasulullah mooy dafa tàmbalee ci borom bi waaw mottalee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw tëgg ko musuma gis tàgg boobu bu yéemee noonu nee na taahat gëlëm na al axlaamu xel yi bi nuuri jamalika ci leeru sa taar bi yow borom bi xam nga taar soo ko mënee def jàkk rek booba des na sëgam yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la kenn mënul woon def jàkk rawatina leeru taaru borom bi ko bind tabaraka wa taala taaxat gëlëm na laxlaamu xel bi nuuri jamalika ci leeru ci leeri ci leeru sa taar bi yaa man yow mi nga xam ne huwa moom kott alxalaaqu mooy bindaakoon moom rekk a bind alallaamu wala allaamu mooy xamaakoon bi moo xam lépp moom rekk xam waaw wax nañ ne Seydina Abdullah ibnu Abbas daan na wax jumla june ci alquran am na istihna am na exception ba mu des benn inna allaha bi kulli cheyin alim nee na wa aba siwaaka alxaqu min di xaqihim wa atat tuayidu mulkaka al ayaamu wa aba bañ na siwaaka kudut yow bañ na ko alxaqu dëkk min di xaqihim ci borom xaq seen képp koo xam ne am na xaq ji mu ji muy wooteel boppam mbaa mu koy wooteel kilifa gudut yow walla système bu dul sa bos walla lumu lumu tëddu yow dëgg bañ na ne du womatu ñeel kudut yow dëgg bañ na ne gisul ne ne ne am na keneen ku am xaq ku dul yow wa ata dikk tu ayidu di dëgëral di feddali al ayaamu bés yi mulka ka sa nguur bés bu xëy rek gën a wane ne yow rek ay buur tabaraka wa taala fala anta rabbun waxidun bi sifaatihi wa fiaalihi bi shahaadatin tuutaamu fala anta yow yàlla rabbun borom nga waaxidun bay benn bi sifaati yi ci melo mi kenn nga ci say melo wa fi aalihi ak jëfam yi kenn nga ci say jëf bi shahaadatin ci seede ci seede tuutaamu boobu des na ko tàmm boobu des na ko tànn boobu des na ko jublu itaama shay ay qasadahu waxtaama rajul ay axada al ilm xadis ah, ja ñëw na ne fi sadaqa fi sadaqati lgun fi sadaqati lganami yataamuha saaxibuha shaatan shaatan ay yaxtaaruha aral mawta xaw ma ko ko waxati tarfa tarafa aral mawta yataamu yataamul kirama wa yastahi aqilata maalil faaxishil mutashaddidin nee na dafa mel ni dee ñu baax ñi rek lay tànn one dee ñëpp lay jël waaw ndeysaan waaye ku baax su faatoo rek dafa mel ni àdduna bi tukki ndeysaan waaw nee na falaa anta rabbun waaxidun bi sifaatihi wa fiaalihi bi shahaadatin tu'tam wala anta xayru mukawwinin wa muqaddirin wa muhayminin tajri lahu al wala anta yow sama borom xayru mukawwinin yaay ngën ji aji nekkal wa muqaddirin ak aji nattale wa muhayminin ak aji domine waaw tajri dana daw loo ñeel ko al-ahkam waaw yow ki gën ci ni muy formé yow rek a formé yukawiru leyla ala nahar wa yukawiru nahar ala leyl tëkkwin tamit bind forme ak eh, taqdir yow rekk yaa ko li nga formé nattale ko it yow rekk ci am domination yow rekk ci am autorité tabaraka wa taala ma kullu cheyin fi lawalimi kulliha illa kama xatat bihi l aqlaam ma kullu cheyin dara amut dara nekkut déet lépp lëf fi lawalimi ci univers yi kulliha ñoom ñépp illa kama xatat lu dul ma nga toogee taxawee nekkee comme na bindee na bindee bii ci moom laqu gaa mu xalima loo gis rek na ko xalima dogal ga bindee woon la nee maanaam ci àdduna lu dëppoowul ak machiatullahi tabaraka wa taala amu fi ma kullu cheyin fi laawalim kulliha illa kama xattat bihi l aqlaam fa chamsu jant bi wal qamaru ak weer bi almuniiru ba yaay ji leeral wa xayruhu ak lu dut moom wal ardu suuf wal mirrixu ak planète euh, mars wal ajraamu ak astre yi corps céleste yi bépp euh, corps céleste yi bépp jëmm bu nekk ci euh, naka la tuddee espace bi yii yëpp tati li ayni muraqibin dafa kam iqtadaahu riaayatun wa nidaam te ti dafay dikk li ayni muraqibin jëm ñeel bëtu aji fuglu min nabaratin ci settantal min nabaratin ci xool min nabaratin ci gis fa kam iqtadaahu comme ni ko sàkkoo riaayatu càmm gi nga ko sàmm wa nidaam ak noose gi nga ko noose fa shamsu wal qamarul muniiru wa gayruhu wal ardu wal mirriixu wal ajraamu yëpp tati li ayni muraqibi min nadratin fa kama iqtadaa riaayatun wa nidaam yëpp ak yu dul ñoom ku nekk yaa ngaa daw fii falak ba nga xam ne fa la machiatullahi tabaraka fa la la machiatullahi tabaraka wa taala لكن ذاتك لا ترى إلا كما تندك قرب جلالها الأعلى لكن ذاتك وانت سجم لا ترى ديفك جس إلا كما تندك نكي نكي موي مكة الأعلام montagne yi qurba jalaliha ci jege màggam sa jëmmu daal malgré li taxawu yépp moo ko taxawal malgré yi nekk yépp moo ko nekkal malgré mbir mu nekk moo koy settantal na muy doxee teg ko na muy amee mu doxe noonu te dara du ci wuute malgré yooyu yépp bët mënul a tege ci yow lu dul mu tege ci yow an tariq al fanaa'i an tariq wa dëkk waaw mooy jeex takk mukk rumba génn ci nekk gi rek waaw maanaa la góor ga wax ni bu sama borom tabaraka wa taala defoon tëjalli ci mbindeef yi ñoom ñépp ñu xalaku falaw walaw yara alxalq anwaaran li di xujubin laxtaraqu kullahu loolu la Cheikh Alxaaji euh, Omar Ndaw wax waaw walaysa walaysatil aynu fi dunya bi mubsirati jalala datika ya batinu ya allah ah xanaa ki nga ko jagleel xasastaha rabbi bil muxtaari safwatina leylata najwak la suñu maam bu baax ba ca daaru salaam cheikh alhaaj Omar Ndaw waxoon waaw ah moo tax ndax Moussa gis na boromam wala gisul boromam coow lu rëy la jur ante sama borom kenn du ko gis ci bëtu kese-kese fokk rek nga nga nga éduqué maanaam yii yëpp a ngi fi waaye yow mi ko fi teg kenn amul accès ci yow waxuma la yow waaye sa yonent bi nga xam ne mooy sa xalifa mutlaq sax kenn amul ci mo kenn nag amul accès ci yonent bi la Cheikh Alxaaji Malik radiallahu taala anhu wax ca eh, Taysir ba nuurun axaata bihi al anwaaru xaajibatan an il xaqiqati kull al xalq kenn amul accès ci rasulullah kenn nag sallallahu alayhi wa sallam kenn amul accès ci xaqiqaam alayhi salaatu wasalaam nee na man naasu mal akwaanu mal malau alladi fi ljawi mal aflaaku mal arqaamu illa gubaarun taara min quturi sama wa min alsamai min al umuri adaamu mën naa su déet nit ñi mal ak waanu déet mbindeef yi kaw ni yi mel mele ul lër yi déet mbooloo mi nga xam ne fil jaww mi ngi ci jaww ji mal aflaak déet aflaak yi muy jaaruwaayu biddiw yi ci asamaan mal arqaamu déet chiffre yi éen laa ko lu dul muy pënd xaara bopp naaw na min quturi sama jógee ci goxu asamaan wa min asama te nekk na ci asamaan minal umuri ciy mbir awaamu yu mag nit ñi kawnu yi mbooloo mi nga xam ne moo nekk ci jaww ji aflaak yéeg numéro yéeg yépp pënd lañ rek bu jógee kaw moo tax asamaan fii sax kaw lay lay firi ndax yi mu tudd ni al akwaan asamaan nañ ci waaw mu ne te kaw nag la fa nekk ci mbir rëy na waaw kaw nag la fa nekk ci mbir rëy na xaw ma gan kaw lay junj waaw xanaa xadra boobu tabaraka rabbuna wa taala nee na axkamta sayra alxalqi lilhadafi alladi aajazat bi darki tawiyihi alxukaamu axkamta yow sama borom xereñe nga sayral xalqi doxuk mbindéef yi lil hadafi alladi jëm ca but ba nga xam ne ajazat lottu na bi darki yi ci jot taxañam alxukaamu attekati alxukaamu ñi am xereñu mën a atte lu ñuy am xereñ am xereñ lottu nañ ci jot euh, taxañ taxañu bu bi nga xam ne moom nga xereñee doxu mbindéef jëm ci te moo ne ku nekk ci mbindéef yi ma nga dox jëm ca bu boobu su dee sax réeree na mbóot ma taxaju ca bu ba la ilaha illallah mu ne waat fa xadat moo tax xëy fa xadat moo tax mujj qulubul aashiqina xolu way sopp yi jamiuha seen maanaam xol yëpp wala jamiiha mboole seen maanaam way sopp yëpp garaban taduqu ka annaha anxam garadan ngir namm ngir namm la garadan ngir sopp la garad dana nekk bu waaye xolu way sopp la la la la la ñu ñamoon ñu indi leen fii ñu namm ko tax na amatuñu jàmm ñoom ñépp seen xol mujj na ngir nammul ak sob la leen azal mosal walla la nga leen mosal yow borom azal te mu mel ni eh, wuññi nga lu tax ñu mën a yëg ne war nañ caa mën a àgg doonte dar ko taw yi ba e, réer na xokkaam yi ñoom seen xol mujj na te duq di e, rëkk ka annaha mel ni ñoom an xaamu ay mélodie lañu fa li ilmu والقانون والعقل الذكي والرأي والتدبير والإعلام كل يقوم بدوره في ظله وفق المشيئة ما أتيح قيامه هذا بأمر منك دون مشارك أبدا وأمر منك فيه سلام فالعلم خم سيانس wal qaanuunu ak loi